askanu sénégalais bañ a sonn yéen a kaay gi di Les Échos xëy moom di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall lamb na poste bi génn lu ci 43 ngir nag man say jàppale lu toll si juróomi téeméeri junni cay njaboota yéen a kaay gi ne na guerre Ukraine bi moo ko waral yéen a di alerte moom xëy di ñu alerté di ñu dànkaafoo di ñu leerala di ñu préparé nee na askanu sénégal dina leer ne sonn moom dina ama maanaam ay jafe-jafe dina am ci lu jëm ci wàllum njëg yi loole nag dama bëgg mu leer naññe ndax ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum commerce si réew ginnaaw carburant bi ak gaz bi huile moom maanaam diwlin gi état bu ko ba maara ko bët journal bi nee na nga xam ne ñooy waa Indonésie ak waa Malaisie ñoom bi nga xam ne moom la ñu amee dañoo lànk kandaare bañ koo jaay yéen gi di bés bi xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am mbir moo xam ne kenn mënu koo werante mooy njëgi yokk na ba maara détaali fii ci Sénégal ministre bi ñu dénk wàllum commerce moom nag weddiwul loola yéen kaay gi di l'Observateur Le Quotidien L'As xëy dañu xibaar naan ñu Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi ñu dénk dénk wàllum finance def na ci assemblée générale bi xam ne waa FMI ak waa banque mondiale ñoo ko doon amal ca Washington moom Abdoulaye Daouda Diallo daan nay lijjanti ba Sénégal am lu toll ci 73 milliards ci ak gi ñu doon jàppale Sénégal dañu ko yokk 73 milliards yéen a kaay ak Madiambal Diagne ji de Le Quotidien tuddee ko suukaru koor bii nag moo nekk opération bi gën rëy ci sous-région yi ne moom la du nekk élection yoo xam ne yu yomb

signature fas yéene nag taañaañal la wuti lu toll ci cent mille parrain yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibara naan bu mag bii nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar di defa li ñuy si jublu nag mooy bloqué ñi nga xam ne ñooy opposition bi ak nag bañ liste parallèle daal di am loolee stratégie la boo xamante ni moom la Benno Bokk Yaakaar daal di ndax Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo bëgg a wut ay parrain yu bare bare bare bare bare su nag buñ a bloqué ñu bare bare bi waaye tamit rawatina yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu waa PDS ñoom nag daal nañuy jéngu PDS yeewu nañ ci nelaw yi ñu doon nelaw ñoom nag nee nañu jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkko te amul lenn luñ si négocier maanaam mooy dellu si Karim Wade ci réewum Sénégal ñoom Doudou Wade ni ki démb lañ ko xam leen nee nañu dinañu jàmmarloo ak Macky Sall xeex ak moom Doudou Wade nee war a xam te ñun waa PDS bu ñu ay dee maanaam bakkan yu à sa personne ñoom waa PDS ni ki démb daan nañuy xam le ne jamono ji li ñuy sàkku daal mooy dikkaatu Karim Wade journal bii di Les Échos nee na maître Abdoulaye Wade daan nay jàjji jàjji na ñi nga xam ne ñooy ay militant ma yéen gi xëy du ñu xibaar naan ñu jamono ji nag waa PDS ñoom nee nañu dañoo bëgg dikkaat ci pouvoir bi ndax dina nekk mbir moo xam ne mu yomb lay doona yéen kaay gi di La Tribune nee na coalition Yewwi Askan Wi soo moytuwulee nag dina am ay jafe-jafe ci lu jëm ci seen investiture yi ndax Yewwi Askan Wi jafe-jafe bi nga xam ne jamono ji am nañu ko si liste Yewwi Askan Wi ci département bu dakaar foofu la problème bi nekk yéen kaay gi di Dakar Times moom xëy samp ab laaj nee na coalition Bokk Yaakaar kan mooy jiite seen liste nationale bi yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne nag ñooy waa Yewwi Askan Wi ñoom fexe nañ ba seen liste nationale bi maanaam ñu tabb koo xam ne moo koy jiite Ousmane Sonko ñoom presque pare nañ ci mbir moomu waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo lijjanteegul kan mooy jiite seen liste bi au niveau départemental yéen kaay gi di bés bi xëy di ñu yoonu saxin mbaye ba ca Louga baasu soxna daal di ñàkk bakkanam saas femme yi nga ne ñoom la joxari baraamu tuuma ni ki démb la ñu doon atte waaye nag dañ koo dàq ba juróomi fan ci weeru mai yéene kaay gi nee na gynécologue bi nga xam ne moom lañ fa fekkoona def na ak giraawaale ku njombe ndeke certificat de décès bi maanaam defewu ko hôpital defewu ko ci hôpital amul saxin mbay de maanaam këram la defee nag li nga xam ne mooy certificat